wasalaatu wasalaamu ala asrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisaani waxlulan min huluqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad waj'al kalaami raashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen bal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci suñu jotaay xam-xam yi nga xam ne dañu ci fàttalenteenoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ci suñu bind yooyu rek lañuy ñëwaat di woyalaat ak yéen ci téere bi nga xam ne dal nañ ko muy jazbatu sigaari an bi li xidmatin li xidmatil muxtaari muy téere bu am am solo ñu nekkoon ci suñu bind bi weesu ci bunt bi nga xam ne mooy at-taarif bi aqsaami diin kon ci bunt boobu ci la ñuy xamle li nga xam ne mooy aqsaamu diin mooy imaan ak islaam ak ihsaan mu wax la itam li nga xam ne moom lañu ñu war a gëm waaye bi mu la waxee li ñu war a gëm ba pare itam euh, dafa ñëw teqale lenn lu ne Euh, naka lañu ko war a gëme lan lañ ci war a gëm ak naka lañu ko war a gëme euh, ci euh, bunt boobu walla ci bind boobu ci la ñuy tàmbalee suñuy fàttalentoonoo ak yéen tey ñuy wax ne mooy bayit bi nga xam ne fii la sëriñ bi tàmbalee di wax ne imaanukum seenu ngëm bi rabbikum ci seen boroom tasdiqun mooy ak dëggal bi annahu naka moom suñu boroom day wujuduhu amam nga xaqiqun lu wér la ne na suñu borom bi subhaanahu wa bokk na ci li ñu war a gën ci moom li ci jiitu mooy ñu dëggal ne suñu borom subhaanahu wa taala ku am la maanaam dañoo war a dëggal ne suñu boroom bi subhaanahu wa taala ku am la ndax bu fekkoon na suñu borom subhanahu wa taala amutoon li nga xam ne moom la sàkk du ko mën a sàkk ndax ku amul mënta amal dara kon suñu borom subhanahu wa bokk na ci li ñu war a gëm ci moom mooy ñu dëggal ne amam gi lu wér la maanaam ñu dëggal ne ko am la te amam gi am gu wér la summa xadimun topp aji jiitu la fi moom suñu borom subhanahu wa Euh, jiitu goo xam ne laa bidaayata lahu amul ab tàmbuli kaay wazu baqaayin te it boroomuk des la fi des goo xam ne laa nihaayata déet ab daytal lahu di ko ñeel bokk na ci li ñu war gëm ci suñu boroom subhaanahu wa taala ñu gëm ne suñu boroom mooy ki fi jiitu ñépp jiitu fi lépp te jiitu gi mu fi jiitu lépp itam euh, jiitu fi ñépp euh, amul fenn foo xam ne dañ naa fala jiitoom gi tàmbalee maanaam dafa am amam gi amul fu mu tàmbalee waaye itam kenn itam mënta wax ne suñu borom subhanahu wa taala fii lay yem maanaam fii la amam gi di yem maanaam mi ngi mel ni koo xam ne euh, nit mas ci misaal nit tey jii su dundee ba faatu dañ naa kii fii la aw fanam yem waaye suñu borom subhanahu wa kenn mënta wax ci moom loolu ndax moom ak amam dafa am ba pare te amul fu mu tàmbalee amam gi waaye itam euh, amam googu nga xam ne moom la am itam amul ab daytal mënuñoo wax ne fii la amuk suñu borom bi subhanahu wa taala di yem loolu euh, dafa euh, jomb ci jëmmi suñu borom subhanahu wa kon loolu bokk na ci lu ñu war a gëm ci suñu borom subhanahu wa mooy ñu gëm ne suñu borom subhanahu wa taala amam gi de lu dëggu la waaye itam ñu gëm ne euh, suñu borom subhaanahu wa moo fi jiitu lépp te it amul fenn fu mu dale waaye itam amul fenn foo xam ne dañ naa fii la yam kenn mënut a wutal suñu borom subhaanahu wa taala ab daytal mu xaalifun aji wuute la li xalqihi ñeel mbindee fami wa xaa'imun aji taxaw la bi nafsihi ci boppam wa waaxidun kenn la za daa'imun euh, boroomuk sax la itam bokk na ci li ñu war a gëm ci suñu borom bi subhaanahu wa taala ñu xam ne ku wuute ak mbindee famille la maanaam suñu borom bi subhaanahu wa dafa wuute ak mbindee famille ci moom jëmmam ak li nga xam ne mooy ay melokaanam ak yëpp yi nga xam ne moo aju ci moom tey mën nañoo wax ne nit day gis ne na suñu borom bi subhaanahu wa taala amee na ak gis ci misaal ñu jàpp ne gisub nit ak gisub doomu aadama dafa bokk déedéet loolu jumte la ndax gisub suñu borom bi subhanahu wa taala mooy gis boo xam ne maanaam amul lenn loo xam ne euh, nuroo na ak moom gisub doomu adama nuroowut ak moom ndax suñu borom bi subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne dafa ab gisam lépp lay gisandoo ci euh, jamono ji mi ji muy ko bëgg a gisee waaye bu dee suñu euh, doomu adama bi tey bu xoolee kanamam rek la mën a gis waaye ginnaawam sax mënu koo gis kon bu ñu waxee ne doomu aadama day gis ñu ne suñu borom subhanahu wa taala day gis booba am na ñu gàtt xel ñoo xam ne dañ naa kon jikko euh, melowoowu kat doomu aadama moo ko bokkule ak suñu borom subhanahu wa te demewul noonu ndax gisub suñu borom subhanahu wa taala euh, faw xana bu baax a baax a baax gisub doomu aadama ci yeneen euh, melokaan yi nga xam ne itam yëpp dañ koy dañ koy askanale doomu aadama mu mel ni suñu borom subhanahu wa taala daf ko am itam noonu la ci suñu borom subhanahu wa taala mu wuutee ak jëmmi doomu aadama suñu borom bi subhanahu wa taala itam ku man boppam la maanaam ku man boppam la a aajewut ndimbal ci kenn aajewut euh, kenn koo xam ne moo koy dimbali ci dara kon ku man boppam la mooy xaaimun bi nafsi yi ku taxaw ci boppam la lépp loo xam ne mbiram la man na ko lijjantil boppam te du ci sàkku ndimbalul kenn waaye du ci sàkku kenn mu jàppale ko ci loolee kon moom ku man boppam la euh, moom suñu borom subhanahu kenn la itam moom suñu borom subhanahu wa maanaam amul ñaari yàlla amul ñetti yàlla am ni nga xam ne noonu la ko ñenn ñi di gëmee euh, di wax ne yàlla ñaar la wala yàlla ñett la waaye suñu borom subhaanahu wa moo waxal boppam ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid lam yalid walam yuulat walam yakun lahu kufuwan ahad loolu tawxiid ju leer nañ la jiy wane ne suñu borom subhaanahu wa moom kenn la du ñaar du ñett te wax na wax na it ba tey ne maanaam bu fekkoon ne ñaari yàlla dafa am bu boobaa itam jamono ji kenn du ko mën a régler ci misaal tey bu fekkoon ne dañ ne yàlla ñaar la wala ñu ne ñett euh, yàlla jiina dafa bëgg a taw yàlla jiina bëggut taw bu boobaa jafe-jafe mën naa am bu boobaa jafe-jafe mën naa am kon bu boobaa jafe-jafe mën naa am euh, kon suñu borom subhaanahu wa euh, bokk na ci li ñu war a gëm ci ay melokaanam itam ñu gëm ne moom kenn la amul ñaar amul ñett moom suñu borom subhaanahu wa is ngir lam yakun nekkut moom suñu borom subhanahu wa taala muftaqiran di aajowoo li maa xallu ci lenn loo xam ne dana wàcc ci kawam fii ci moom wala li faalin waaye du caagi ni jenn aji jëf joo xam ne da jëfal am manaqal ci uh, aji xellu maanaam képp koo xam ne yaa ngi am am xel tey xelaat xam nga ne suñu borom subhanahu wa moom maanaam mën na boppam waaye amul soxla amul aaji jëm ci kenn amul lenn loo xam ne moom lay sàkku ci mbindeef mu ko koy euh, defal ndax moom lépp loo xam ne moom la bëgg kàttanam mate na ko te it euh, man-manam mate na ko soxlawu ci ndimbalul benn mbindeef waaye soxlawu ci ndimbalul benn doomu aadama kon moom aajowul jëm ci kenn waaye nit ñi ci boppam ñoom ñoo woo jëm ci moom suñu borom bi subhaanahu wa kon loolu li muy wone mooy kàttan boo xam ne suñu borom subhanahu wa am na ko waaye man-man boo xam ne suñu borom subhanahu wa am na ko waaye sañ itam boo xam ne moom la suñu borom subhanahu am mu yokku nekkut saanin ab ñaare loxu di ko ñeel fii zaati yi ci jëmmam ja wala loxu te déet di ko ñeel euh, mushaabihun di aji nuróog sifaati yi ci melokaanam yi moom suñu borom subhaanahu wa taala mooy liñ doon wax léegi ne maanaam amutam ñaareel maanaam amut ñaari yàlla amut ñetti yàlla amut waaye benn yàlla dong moo am kon jëmmam ci moom suñu borom subhaanahu wa taala moom kottu moom kese la amulam ñaareel amutam ñetteel waaye itam amul lenn benn mbindeef boo xam ne nuru na ko ci ay melokaan nuru na ko ci ay melokaan donte ne mën nañu tuddoo aw melokaan ci suñu borom tudd ko ci doomu aadama mel ni da koo nuróoleeg suñu borom waaye ehm, suñu borom subhaanahu wa taala amul benn melo boo xam ne da ko nuróole ak doomu aadama ay melokaanam moom rek moo ko amee moom suñu borom subhaanahu wa kenn eh, fépp ku ca moo ne walaa lahu déet di ko ñeel fii fi'alihi ci eh, jëfam ya sharikun benn bokkaale maanaam suñu borom subhaanahu wa li nga xam ne moom lay jëf amu ci kenn koo xam ne moo moo moo ko ci moo ko ciy jàppale muy bokkaale ak moom jëf ji ngir mu mën a taxaw ci misaal suñu borom subhanahu wa taala bi muy bind asamaan ak suuf woowut benn mbindeef naa ko kaay jàppal ma fii wala jàppal ma fee moom ci kàttanam ak xam-xamam ak sañ-sañam moo ko bind ci ni nga xam ne noonu la ko bëgg a binde waaye moo ko uh, uh, yéwénal ci ni nga xam ne noonu la ko bëgg a yéwénale ci lu du jàppale benn mbindeef boo xam ne mooy ñëw taxaw di ko ci jàppale wala dara kon moom ay jëfam soxlaw ci ndimmal soxlaw ci ku ko jàppale soxlaw ci koo xam ne moo koy tàllal loxo euh, ngir di ko defal dara ndax kàttanam mati na euh, lépp moo tax mu ne subhaana man tudd naa sellu ka nga xam ne zalla toroxlu na lahu ñeel ko almuluku wóor ya maanaam ne na kon maa ngi tudd sellu euh, sama borom bi subhaana wa mi nga xam ne buur yépp dañuy torox lu jëm ci moom képp koo xam ne dañ lay wooye buurub àdduna da yaa ngi torox lu di jëm ci suñu borom subhanahu wa taala kon suñu borom moom mu nga xam ne moom la ñuy torox di jëm ci moom nee na maa ngi tudd ak sel sellam bu baax a baax a baax kon mm, melokaan yooyu nga xam ne moom la ñu tudd wala jikko yooyu nga xam ne moom la ñu tudd ci suñu borom subhanahu wa taala ay jikko la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko jegoo te it euh, jaam bi daf ko war a gëm xam ne yooyu ñu wax yépp ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala lu am la waaye yi nga xam ne moo ci jiitu mooy mu dëggal ne ah, suñu borom subhanahu wa taala ku am la waaye itam mu xam ne suñu boroom amam gi amut fu mu dale teyit it amut fu mu yem waaye ko wóote ak mbindeefam yi la ci bépp fànn te soxlawut jëm ci menn mbindeef waaye itam ñu xam ne kenn la amul ñaar amul ñett waaye ay melokaanam itam kenn fekk ko ca moom suñu borom bi subhaanahu wa taala kon ñu ngi euh, tuub bu baax tey jéggulu di taxawlu foofu di wax ne in uridu illa al islah ma stataatu ma tawfiq illa billah wassalaamu aleykum wa taala wa